dañuy ñëw rek ubbi assemblée bi bu ñu ubbee mooy député yi mën nañoo waxtaan donc waruñu woon voté tey mais dañoo war a dem séance salle de de salle commission technique toog waxtaan ak commission des lois ñu càmbar ay pàcc ci code électoral bi loolu moo doon li nga xamante ne moom moo am tey donc tey ouverture session extraordinaire la bu ñu jàllee ci ouverture session bi président dafay wax ni am na temps large parce que dafay am lu ñuy tënk ñu ne 72 munoo délibéré ñu ne ankay bu fekkente ni procédure d'urgence la ah avant 72 heures mën nga délibéré donc tey jii le président ubbi wax ni suba mun nañu waxtaanee loi bi samedi mën nañu ñëwaat plénière tënk loi bi voté ko donc tey du woon pour voté mais pour ouverture session sax avant 72 heures mën nga délibéré donc tey du woon pour voté mais pour ouverture session bi